simile waa politicien yi day taal réew mi la mardi tali sur quotidien en tout cas fi ne bi nga xam ne nag maanaam mi ngi yokk day ak waa taay élection présidentielle ya waaw opposition bi ak waa nguur gi day waaw ñoom la ñu jambaaraamu tuuma de à la barre sur sa année tolluwaay réew mi nag fi mu nekk nii daal di ne tartar goo xam ne day ci ëttu politique bi ajumay ah, tay ji lée bu yeboo ñu def attention de attention de ndaxte nag ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi day danañu organiser ab marche laa la wax waaw ma ne leen niki ne mu day waaw opposition bi tamit bëggoon nañoo marche fële waaye Ali Jagoor Njaay moo leen indil oto kon ca Grand Yoff ko gaye manifestation ba waaw daal di koy soppi ne def ko kon ab ziara ci kër yaayu Khalifa Ababacar Sall waaye waa rado ak waa Jamra waaw ma ne la ñoom day ànd nañoo njàqare tiis ti nañu de ti nañu lool waa Touba day te ja waaw daal di nay ñu wàccee ay kaamil jàng tamit ay xasida enquête yéen a kaay ne fi tension politique bi yegg fi mu élection yi day looloo waral waa Touba daal di yëkkate kon seenu kaddu ndax yow ci jamono joo xam ne kon opposition bi ak nguur gi day ku ci nekk ngi takku sa morom ko wan ne ko du ma la may dara ba lay sal danañu amal tey ji ci ajuma ji day ab doxum ñaxtu laa wax Alioune ah, ne xam nga bu ñu demee bay wut ay milice mooy mbër yi ñuy wër rek waaw loolee lu dangereux la lu doy ci réew moo xam kon ab état de droit la yow takk dee di kese ñoo am sañ-sañ yor wàllum kaaraange waaw waaw yéen kaa gi ne dama ne amul benn élection ci àdduna bi laa lay wax léegi boo xam ni jar na am nit ñàkk ba kanam élection jaru ko 24 heures yéen kaa ne agression bu doy waar bu salta sax bi nga xam ne nag moom lañ defoon ci siège Pastef fa day waaw réew mi nekk ngi jëm ci gudda maar day ci kaaw bu indescriptible laa la wax ay samba sorabali da ay nervi day ñoo ko def ñoo yàq siège Pastef fa de song wi nga xam ne nañ ko Ousmane Sonko ni la day di xaxar ci kawam rek mel ni lu koy bëgg a rey nekkul dara dul waa ji nag làmmiñ baa neex de ilaha illallah Ousmane Sonko ci boppam kon moo am fa saa li muy wax ni muy duggee ci xolu sénégalais ci boppam loolu la nguur gi mënul nangu loolooy bi taagaa seen biir xol yi Ousmane Sonko ñooma àndal day waaw ñoom nag xel mu tey la ñoo am ci nguuru Macky Sall gi lée ne nguur gee ko def la quotidien yi ne kaay ne parti Ousmane Sonko ba day waaw Abdoulaye Diouf Sarr la ñu joxoñ day mi ngi am ginnaaw nag benn ministre kon ba mu yëkkatee ay kàddoom publiquement ci mbedd mi ne dana wuti nag ay samba surabaali di ay nervi ngir wàllum campagne bi lée te samba surabaali di nervi yii nga xam ne ñoo caxa-caxatee kon siège Ousmane Sonko bi la ca Yoff waaw dama ne ministre Abdoulaye Diouf moo leen yónni aa gars yi Ousmane ñooy wax du samay dee ñi ànd ak Abdoulaye Diouf ci Vox Populi waaw naqarlu nañu bu a ñu caxa nga xam ni kon moom la Mamour Diallo kon indi na ci 94 milliards yi évidence yéene ba seen exclusive yéene kaay ne te Mamour Diallo kay ah kurpañ la door Ousmane Sonko waaji wàcc de kaw ah, directeur Mamour Diallo ne xanaa xamoo leen ne ko mbaa Ousmane Sonko day wallaay li muy wax gëmu ay bonne gouvernance transparence na mbir mi leer ñang ñang ñang patiti patata lii Ousmane Sonko di wax gëmu ci daa man Mamour Diallo maa ko wax Ousmane Sonko li tax muy def dal ni yëpp du dara lu jiitee syndicat bi teere yëpp dañ ko doon jaxajaxatee ay àndandoom rek ay àndandoom rek te 94 milliards yi mu yox day waaw ñetti milliards yu dëggas lëf 3 milliards 445 mille day la nguur gi génneegu te man Mamour Diallo gisuma xaalis yëgaanuma xaalis laas teewul opposition bi waaw dañuy yënga-yëngal de yëngal gësëm kay termine yéene kay ne en tout cas nañu caxa-caxate kon siège Ousmane Sonko ba ca waaw waa Pastef day joxe nañu turu ki def lëf la ka ko santaane na justice def liggéeyam rek Abdoul Mbaye waaw nee ñoom seen justice bi du ñu daan kenn benn liggéey du ko def teew ca jooje waaw ñi ngi jël ay ndaw yoo xam ne kon dañoo nekk ci opposition bi day ña nekk ci dikkee ñeneen ñaa nga ca kaso libération yéene kay a bokk ak Saliou Fall ak Mamadou Karaas Kan waaw yóbbu nañ leen ca procureur tey te procureur tey nee na caabi na leen amee wal fajiri ne en tout cas day waaw wax na lu bariwul waa nguur gi lay tey sikundik sikundik ne jinne jommal na la ndaamal Kajoor waaw parce que borom day moom Idrissa Seck ah. nee na adduna bi yëpp ay seede ci dogal yu jaarul yoon lépp lalu ci wàllum agression muy wàllum justice bi ci kaw nit ci wàllum politique bi ci administration agressé rek Idrissa ne xam nga ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi day bu ñu demee nag day wuti ay milice privé di leen fay di fay ay mbër ay nervi loolu mooy wane ne tey nguur gi wóolootul sécurité waaye tamit wóolootuñ sax ñoom seen justice bi lee ndaamal kajoor ne moom Idrissa Seck nee na ñàkk dal sérénité gi xam ne kon moom la nguur gi àndal tey mën naa dugal Sénégal nag ci am guta koo xam ne maar day taali waa PDS mi ne dañuy géré élection yi boycotté nag Ali Naar ci exclusif yéene waaw weddi na Samb jël xalimaam ci 24 heures a jàppal kay waa kaay nee na a rekale yëpp benn candidat daal moo am ngir Macky Sall jóge fii mooy ñëpp dajale jàppale benn candidat kese bugaan gay dani rek tey jamono xam ne ne gaa ñaa rek waaw réew mi day sonn nanu lool baax na fi de libération yi ne kaane Tahir Sénélec day ma ngay social ah waaw ndaxte nag lu tolloo ñetti téeméer ci ay kër yoo xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw day diggante Kolda ak Sédhiou waaw ñoom la ñu branché courant alhamdulilahi rabbil alamin Amadou Makhtar Cissé directeur général du Sénélec waaw ne waxuma la sax branché bi nga xam ni kon branché nañ leen ko te duñ fay dara waaw waaye weer wu dee wu ne danañ leen dimbalee junni ngir ñuy mën di jënd seen courant gratuitement waaw waaw <laughs> alaaji coow li daal lii la mi miti na génn xeetu miti goo xam ni ku leen mënul dimbali leen fitnaal te bu leen agressé boo paree mën na leen